assalamualaikum mbokki internet yi di len nuyu bu baax di len ziar kon ni ngui koy defé à chaque fois actualité oblige di nuyu kilifa diine ya kilifa ade yëpp di nuyu suma sëriñ notre responsable moral bu daal te Moustarchidine wala dat di nuyu kilifa diine yëpp di ñaan yalla rew mi yalla ci yalla def jamm ñi ngi fii si géejawaay ñew seet ci dañ nan lak de guerre sax lañu wax ndax suñu gisee tons gis tam suñu tons bi rek lak de guerre mom mo tok wa tonto Azou ñi ngi leen di nuyu bu baax di leen ziar tey nag ñu fasiyene waxtaan ak ñoom barki démb def nañ benn sortie ñu gis nag bañ defee sortie ba tey ñaari sortie am na fi suñ ne ñaari sortie mooy gri Bordeaux def na fi point de presse modulo Lo tey def na benn sortie te loolu yépp mën nañoo wax ni Lac de guerre tamit ci la bokk tey nag république dafa am tontu am na ak ay éclaircissement moo tax nag tey ñu ñëw fii dañ koy bàyyi mu nuyoo tonton ñu waxtaan ak moom ci li nga xamante ni mooy Lac de Guiers 2 ba tey combat am fu mu toll di ko ñaanal yàlla nag yàlla may ko combat ci barke yonent bi parce que jot na champion la koo xamante ni benn défaite la fi am kon donc war naa mën a bëri wax dëgg yàlla pour promoteur yi dañ ko seet si mu bëri ndax mër la champion la nangu naa entraîné te bokk na ci li nga xamante ni day defar réew tonton maa ngi lay di wax bisimilahi rahmaani rahim di ñaan yàlla yàlla yokk jàmm ci réew mi yàlla musal ñu ci balaa ak seytaane suñu mbokk yi nga xam ne bërki démboo njaay accident bi am fële ci yoonu Kaffrine bi ñu ngi koy jàll senegal yépp di metit li comme ni ko senegal yépp mettitloo ñi nga xam ne ñoo ci am gaañu ko di ñaan yàlla ñu am wér ba dellu seeni jaboot di ñaan yàlla def fi jàmm yokk fi jàmm di nuyu kilifa diine yi ak kilifa aada yi di nuyu waa Sénégal yëpp plus particulièrement waa Géejawaay di nuyu staffu Lac de Guiers yëpp ci jàmm Fatma. papa waxtaan bi am na solo mais bala ñoo ñëw ci li nga xam xamante ni moom mooy combat royal bi dafa am loo xamante ni moom mooy actualité barki Dembo Ndiaye Gris Bordeaux def na point de presse point Gris Bordeaux bi nan nga ko gisee ak lan nga si jàpp. macha allah loolu day neex a tontu quoi parce que pourquoi je day neex tontu on est tous des Dakarois, plus particulièrement des Sénégalais. La de guerre, moo choisir nekk mbër Gris Bordeaux choisir nekk mbër Balla Gaye choisir nekk mbër Modou choisir nekk mbër kon yalla mo len ko jagleel te buñ ko jagleel ñom ñoy mayante xaliss sen bir kon amna na wax yo xam dara jaru ko fi Lac de guerre ah, def na lu nek ci lamb ji ben défaite la am ci lamb ji te défaite bobu ñuy wax défaite gaa koy xol gauche droite ndax egg na Gris Bordeaux wax rek parce que la de wa de ci Gris Bordeaux wax ci de interview interview bi mu def. de presse de presse bi tout sauf la de guerre c'est de guerre qui c'est la qui devait dire tout sauf Gris Bordeaux. mais lutax wax Gris Bordeaux depuis quand le Gris Bordeaux victoire. mais depuis quand la la guerre pour Gris Bordeaux. C'est depuis quand le Gris Bordeaux victoire depuis 2015 le 3 mai si je me trompe pas 2015 jusqu'à aujourd'hui Gris Bordeaux dans nos ça fait 9 ans La de guerre barki Dembo la il ci a non non Euh, sama maafi fii nañu waxante dëgg waay senegal nañ jàppalante waay ñun ñëpp ay doomu Sénégal lañu ñun ñëpp benn lañ ci réew mi képp kuy wax na nga wax ndax yàlla bàmmeel dafa xat de dëgg rek a fa xaj. mais tout sauf Gris Lac de Guiers bi boobu dafa leen a xaw a touché. non képp kuy amateuru làmb wala képp kuy sportif wala képp koo xam ne sa xel dem na ci làmb war na la metti est-ce que waxeewu ko ni comme euh, am na ñeneen ñu gën a soxla ndax ñoom dégg nañ leen. Euh, ci seen wax ndax gis nañ nag Lac de Guerre 2 mosoon na fee euh, tapé t-shirt Thier mhm. def ci photo Gris Bordeaux ba naan Gris ragal ñu gis est-ce que ne top bi ngeen ko doon topp looloo tax tamit mu bañ a bëri ak sam sàmm sàmmkatu mboot moo xam mboot muy soox en 2007 avant muy bëri que euh, kii nu mu tudd Tyson il avait dit képp ku mas a daan Tafa gay dinaa la daan la de Guerre daa bokk suñu daan Tafa gay je le salue en passage Moustapha la dëgg dafa bokk si ñu ko daan mais lan mooy ndeyu Gris Bordeaux du lim ba tudd ci la dëgg il a peur de ce gosse là. mais jàpp du ko ragal. yàlla xam na ko même c'est son entourage c'est que Gris Bordeaux a peur de la dëgg man je suis de Médina. est-ce que tu ne bëggul tëb rek la. je je suis de Médina. je suis de je suis de rue 25 ak rue 26. ok ñi may waxal ñi may gis xam nañ ma man du ma wax di nëbbatu. Gris Bordeaux a peur de Lac de Guiers. tonton nekkul ni comme ay ñoom Siteu dañoo xew booy ñaa barki dem booy jaay tamit defi lu lu lu rëy daan Balla Gaye mm-hmm. Mm-hmm. xam nga ak ak ak euh, bi ama moom instant bi moom blessure bi tamit ñaar ñooñu mm-hmm. xam nga dañoo xew am punch par rapport ak Lac de Guiers 2 est tamit loolu lay wër combat xam moom giri moom macha allah ay combat coow lay wër très bien boo gisee boo gisee ma wax la loolu Gris Bordeaux bëri na ak Eumeu Sène Gris Bordeaux bëri na ak Modou Lo Gris Bordeaux bëri na ak Balla Gaye Gris Bordeaux bëri na ak euh, Tyson mais VIP ñi mu bëreelul ñi si des am na ñoo xam ne dem nañu dem nañu retraite Tafatine moo fi des ak Lac de Guiers dafa am combat kon buy choisir bu doon am na fit góor gu dëgër la te combat ja jànq la bëgg ci yoon nañu waxante dëgg waaye Lac de la waroon laaj warul am choix kenn Non, ce n'est pas rejeter. Le mot rejeter, c'est un peu lourd. La de guerre, si rejeter, nous rejeter. La guerre, c'est de Yallah. <laughs> Si man barki demb la ci ci ci ci ci ci ndam 9 ans il n'a pas terrassé quelqu'un kon buy bañ di am waxante kon ñun ñoo ñun ñoo te son gars son président euh, Ndoye monsieur Ndoye mais quand même euh, niveau bi niveau bi mu am y' a certaines questions yoo xam même bu nga ko posé war répondre modérément moo gën yoon parce que àddina dafa doy war ñun ñëpp dañoo jur nit ki lepp looy wax set ci yalla set ci yonenti bi pour la prochaine fois il n'a qu'à mesurer ses paroles parce que wax diñ ko wax ña koy dégg xamoon nañu koy déggé kon loy wax rek na doon lu rafet waaw am na solo euh, bu ñu jógee ci li nga xamante ni mooy point boobu ndax point boobu tamit dafa bokk ci actualité. Mhm. waaw loolu tax ñu ñëw ci mu des beneen point gis nañ nag keroog nag seen point de presse bi nag daa mel dafa jàll nag de. Mhm. de point de presse waa de tey Mor Lo Modou Lo au moins ñu koy nuyu au passage notre roi des arènes instant mhm. bu pare na. c'est un grand monsieur ce gosse là bi nag am na lu mu def keroog de. def na effet non Modulo, c'est un grand monsieur. C'est la, mel ni yéen bi def na. Uh-huh. parce que dafa am loolu laal uh-huh. Modulo, c'est un grand monsieur. Uh-huh. on le salue de passage on le remercie aussi de passage pour feebaram bi yàlla def na ci jàmm. c'est le c'est le roi des arènes. il le mérite. bu doonul l'on démb te bu doonul woon tey doon suba parce que xol bi moo rafet man xam na Yalla naa yàlla xam bi xam parce que lépp looy def wala lépp looy wax na ko wax ndax yàlla Modou Lo bëri naag Lac de Guiers son premier combat maa ko wàcce oto bi mu yéeg ñu dem ba booru port yooyu bi ñu jógee 2STV bi ma wàcce ko oto bi ne ko yéegal ci oto bi barki laa ilaha illallah ah ñu ànd man ak moom ak Lac de ak booy yi entourage bi def tour ñëw ba këram dugg mu ne ma tons billaahi wallahi ku dee ak sa bàmmeel ñu ñëw ba këram boobu papa ji yàlla na ko yàlla rim téexuñu mi ngi dund boobu tamit yaayu Lac de Guiers mi ngi dund yal na leen yàlla yërëm te yéexuñu bi nu ñëwee sa sa sœur mu dugal ñu ci néegam sœur bi photo néeg bi yëpp photo Lac de ci nekk mun na ma tons kii keroog ba may ngemb ji di dem di bëri ji ma ne lat xam lu ma doon ñaanal yàlla ngeen niil kon mënuñu wax dara ci lu bon ci moom ñu ngi koy ñaanal gudd fan ak wér di ko ñaanal jàmm di ko ñaanal ñëwaat bi mu ñëw nag vraiment yàlla na doon li ko jikk mais daa mel ni royal ngeen bëgg te tamit pare na de ndax nee na toogul di xaar ama kon dafa mel ni daf leen a xaw a dégg mais muut loolu Lac de gis nañ ni Lac de Guiers nee na royal la bëgg mm-hmm. mais combat royal yooyu ba tey mm-hmm. fan ngeen si tool mais père royal diis na de waaw ñu ngi si ñu ngi si moodu bu ñu ko joxee aussi war nañu ko jox de diis na de waaw mais loo gis lu diis moo ñu arrangé moo ko arrangé parce que parce que ñun dañuy yóotu lu bari non c'est très bien loolu la bu xiifee fekk koo xam ne dafa woor ba ngoon xam day day neex mën nañu ñaar et puis la vie continue eh. c'est des enfants ils sont l'avenir devant eux ñoom ñooy maynta xaalis la de guerre ak barki la ilaha combat la comme Sénégal la ce que ah, euh, de guerre, parfois gars duñ dara mhm. Père ñu au passage mhm. dégg nañ ko dafa bokk ci rasu. Mhm. mais est que nekku tamit Lac de kon ni muy ni mu war a bëre am na doole macha allah. Mhm. la kenn du na entraîné wul mhm. mën na bëree mais mbër mu ragal defet la dégg nit ñi rek mais est-ce que tamit nekkul ni ragal defet boobu moo tax gars yi bëggatuñ koo jël parce que li mu war a jox àqam comme ñëw gëdd mbër bi kon ni yeneen gars yi di def mais ñu gis Lac de Guiers day jël temps ci combat est-ce que ni loolu moom moo tax tamit mbër yi di ko xaw a boycotté tuuti. dafa am benn mot boo jiital ba moo tax ko boycotté du leneen mooy kumu nga ci c'est seulement ça pour question de lutte sport dafa am défaite am victoire am nul bo ragalé défaite jarul ngay dem ci wala nga jarul dem football un sportif combat am na ñoo c'est des défenseurs c'est des attaquants peut-être Dieu l'a donné la chance mon ci défenseur yi la mais foo ko fekk tu ci défense attaquant bu yore bal def ballon pied ñëw ci kawam la masu la la ma wàdd wàdd waxoon bal bi wala lom bi mais ñaar yëpp waru ñoo jàll na benn bi dem bàyyi fi benn bi mais est tey mën bu bees puisque dafa am benn staff boo xam ni bu dynamique mhm. gis nañ ni tey staff bi am na fu bëgg a yóbbu Lac est-ce que tey mën nañoo xaar Lac de Guiers boo xam ni ba bi Lac de Guiers bee amaat changement que la de taxaw ko tu sais pourquoi la question bi mon neex c'est quelqu'un bo xamné pour wax ci mom dama ci sawar tonton El xam tonton Azou bay <laughs> la de di de ñaar gis xam ndax de ngeen wax ci wala c'est 11, 7, 11, c'est azou, azou, azou. Azou, azou, azou, les choses ont changé sommes ngi une nouvelle an 2023 di ñaan yalla yok fi billahi wallahi c'est un lot de guerre new. Wow. parce que pourquoi je dis c'est un lot de guerre parce qu'il y a des personnes des bonnes volontés yo Yalla rek indi defal yalla rek tax

on dirait que ni loolu moom moo tax ñu bari dañuy yaakaar loo tax ngeen jug mais détermination bi ngeen am lan moo tax ngeen yéex a jug ak Lac de Guiers fi mu tolloon ba tey ji yéex a jug bi pour lan la. yéex a jóg non c'est pas yéex jóg mais chaque chose à son temps chaque chose à son ak yàqule ñoo ànd xale boo waree jëm am un but bien déterminé fee laa jëm boole ci yàlla boole ci yonent bi ak sa diine. yàlla dina la fa eggal mais boo dëgëree bopp mag mu la wax nga ni gauche walla droite di nga dem ba foofu mbëkk ko dellu si waat la dëgër dama koy ñaanal jàmm parce que pourquoi man dama koy ñaanal jàmm jàmm Sénégal lu muy tàng-tàng Sénégal lu muy neige neige Sénégal lu muy sedd sedd am na yu bari doo ko ci dégg kooku moom dañ koy sante yàlla yàlla mi nga xam moo am may yàlla na ko yàlla gën a yokkal respecté na ay entraînement ñu xool ko gis ko respecté na ay kilifaam ñu xool ko gis ko respecté na ay voisin ñu xool ko gis ko loolu moo ñu may doole loolu moo ñu may ñu tam ñu jóg xar suñu tànk tubéy xam ne géejawaay Balla Gaye a tout fait ak géejawaay Balla Gaye def na fi lu nekk kooku moom ñu ngi koy nuyu à passage di ko ñaanal gudd fan ak wér di ko ñaanal lii mu jóge nii lii ñëw yàlla na ko dàqal ci barke laa ilaha illallah ma xam ne rek foog ñu jàppale ko te buñ ko jàppale barki Rasulullah li ñuy wuti dinañ ko indi géejawaay. est dem ci ñi nga xamante ñoom ñoo fi nekk si géejawaay ku ci mel ni Père Diaw di ko nuyu au passage mu nekk mag ci géejawaay dégg nañ keroog Lac de Guiers sax di ko di ko di ko nuyuwaale ne per Diaw li mu wax dëgg la est-ce que pare ngeen pour dem te sol seen daal dem waxtaan Père jaw tamit tamit mu gën see jàpp comme ni muy wax. ku ma faale ma faale les autorités et les ñun amuñu si ak kenn xaar ma yàlla di ci jiital Aïda Sow Diawara la dame di fer kooku sama yaay la sama mag la sama jigéen la di ko ñaanal gudd fan ak wér di ci teg Lat Diop kooku tam suñu xol lañ ko def Malick Gakou ñooñu ñëpp dañoo jàppale Lac de Guiers jaw Mouhamed Aïdara jaw mi ngay wax nag jaw loxo masul jóg ci Lac de Guiers mais ku si nekk ak ni ngay jëfee ku si nekk ak ni ngay defee barki démb dégg naa interview am bu mu def ak Sa Thiès bëggoon naa ci sax dugg te il faut que ma dugg ci parce que man aussi je suis un notable ak Guédiawaye tax sama jeune coin coin dañu yaakaar ci man moo tax lépp lu may wax yàlla rek moo tax ma koy wax jaw je t'aime bien ku la bëgg laa ku la respecté laa ku lay xool bëtu julit laa ma bëgg lépp lu mën a am nañ ko néegoo te bañ ko teg ci mbedd mi dañ koy néegoo péncoo ko xale yi ñun ñoo leen bokk jur xale yi ñun ñoo leen bokk yélif bëñ ak làmmiñ dañoo dëkk mais léeg mu am jafe-jafe jafe bu amee nañu xool na mu rafetee ñu defaree ko nag mais rajo yi sociaux yi wala tele yi du waxukaay yenn yi. wax Sa Thiès waxtaanu biir néeg la. waxtaanu biir néeg la waxtaanu biir néeg la parce que pourquoi waxtaanu biir néeg la ñun yàlla li ñu mel yàllaa ñu ko bindal sa kër. da nga jënd sa kër ay millions defar ko ba mu rafet def ci meuble ko def ko rafet yeewu gis fa loolu naqati chaque jour boo yow di nga gis sa kër la naqati doo ci mën lenn yàlla ñu ko yan kon bu ñu jógee bay jiite bu ñu bañ ku ñu sànni xeer bu ñu bañ ku ñu teqatal ñu bañ egg suuf rek lépp lu mën a am aussi yan nañu yàlla xelal dooleel ñu ba ñu mën ko gérer man soxla naa ko trop bëgg naa ñuy waxtaan xool nu ñu defaraatee diggante bi et puis la vie continue géejawaay nag nanu jóg ñun ñëpp ñu jàppoo jàppale Lac de guy gi Balla Gaye yan démarche ngeen ci def gis nañu ñoom ñett ñoom ñett la yàlla teg géejawaay mm-hmm. ak Alioune Seye numéro 2 mm-hmm. tey euh, Sa Thiès mm-hmm. ñu gis ñoom ñëpp ay xaritam lañ ko ci mel Alioune Seye 2 Sa Thiès ñooñu ay féetewoo Lac de lañ suñ ne leader yi ne Balla Gaye numéro 2 ne guy gi tey géejuwaay bari na ay ténor yoo xam te ni mënoo lim ndax ku lim doo matal tey tey yan démarche ngeen bëgg a def pour yéen ñëpp ngeen toog waxtaan kon li muy wax nee na Balla Gaye doomu nijaayam lañ mm-hmm. xoomu na la koy cousin am la mm-hmm. ku ci wax sa morom dara di nga ko gis ah, bala Gaye taxaw ne sama diggante ak Lac ak guy yoonu kenn nekku ci kon lool rek jeex na mais tey est-ce que pare ngeen pour ñoom ñëpp ñu toog ngeen waxtaan ak je vais te dire quelque chose man dama leen fonk li nga ku ci nekk xam nga ne man damaa féetoo Lat Joor la Lac de Guiers mais Balla Gaye barki laa ilaha illallah man su may wax moom du sikki Balla rus na mu rus koo xam ne lu ma lu nekk laa koy lu nekk laa koy def bu mu duggee ci kër gi yaay ji man bambara laa ñoom soose lañu bu mu duggee ci kër gi lu nekk laay yàq yaay ji xam nga mais bu mu duggee yaatal bi may yaatal Balla lu mu jàpp billaahi ma wéet ak moom ne ko booy nii ak nii ak nii mu bakko nitu kese nit ku looy wax ak moom looy wax ci moom na yàlla tax ngay wax nitu kese la li mu wax nag fekkoon na ñu nekk ci xëy na yow da ñu fekk suñu biir laax bi mais fekkoon na ña nga ca laax ba soow mi moo desoon defal nañu lépp bay xaar soow mi te bu soobee yàlla ak yonent bi bés bu mbër mu mag amaatee combat fii ci eh, géejawaay vous allez voir parce que boo nee guy gi

yàlla na ko yàlla lafal cat yàlla defal ko jàmm yàlla xiir ko ci lu baax musul ko ci lu bon. doomu ndey la dëgër non mais c'est c'est c'est la vie c'est géejawaay les gens parlent nit ñi ñooy wax. mais mais jàmm rek fi am. fii lu fi xaj leneen lu dul jàmm ñi ko jiite mag ñi fi nekk ñun ñoo war a toog waxtaan jéem a changer jikko yi te bañ di féete nii féete na ñu jàppale ñoom ñëpp ku ci nekk ñu jàppale leen ku xewle ñu xam ne géejawaay xewle maa ngi gërëm ñëpp di nuyu nag Aziz Ndiaye. bu baax di ko ñaanal jàmm di nuyu aussi Gaston Mbengue parce que mënuma ko mënumaa wax te waxuma Gaston. mais ñu ngi leen di contacter bala ngaa kii. bala ngaa xaar may moom rek ma wax ak sama sama sama sama sama copain sama waay di ko ñaanal fa mu nekk ca France. yàlla na ko yàlla indi ci njabootam fëgg boppam indi ko fii ci njabootam Gaston kenn mënul wax làmb tuddoo ko barki Demba Ndiaye laa woo Aline Gueye maa ngi chaque jour billaahi chaque ñaari fan dinaa woo Aline laaj ko nu l'état de Gaston il ma doon. tàngam ma koy waxal di ko ñaanal gudd fan ak wér yàlla indi ci njaboot ko indiwaat ko ci làmb ji on a besoin de Limbeng gas on a de tout cœur avec toi yàlla na la yàlla lafal cet yàlla may la wér ba nga dellu siwaat fii si njaboot aw pen pen pen pen fëgg bunt wéral waaye eh. jógal dox ñu dem régler ji bagage yi xam nga lépp kii sama waay la moom mais waaw am na ñuy dox de waaw jamais rejeté pourquoi rejeter Siteu c'était notre enfant c'était c'était là. là. rejeté non non gars il pourquoi pas on est là pourquoi pour job c'était nous, Quand là. kooku waa Pikine yabaluñ ko ah fonde bi ah, au lieu gars yi dañuy wax mais là non Gris Bordeaux bu non, non waxuñu la de guerre. yow mbeur mbeur bi daan sa mbeur ngay wax yow ah borom neuf yi ah mais quand même nañ waxante deug ma fi de sa sa laisse ça tu dis que tu es un grand grand monsieur mais je vois que tu es un mousse hein, boy. mais hein. mais <laughs> <laughs> merci merci. Pirnero.